laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ah <laughs> booy Roubé Time lu bees sax toolam yàgg dafa ne kat lu ne dugg moo gën lu ne cool émission bu bees tàkk ci pàcc kenn tàggee ko ko dina ma tiis loolu nag ma wax leen ko <laughs> muy la Roubé Time Roubé émission boo xam ne dafay am sept lundi mercredi ak samedi 18h 19h sur la chaîne leader Equivox TV ñu ruube time dama lay ruube bu ruube ma war nañu am na ruube askan ruube time booy am na sax <laughs> am na na lu si gën a neex mooy actualité non yow mii di jaay sax am lu bëgg a fësal non dañ may woo soo wooyee ñàmmee artiste comédien du peuple booy mu ruube la ko donc ñoom ci des ruube time ربيع أس <laughs> No, no, no, no. <laughs>